waa Capa bi tey nag dañoo ñëw fi pour waxtaan ak euh, sëñ Ousmane ni nga xamante ne ci koñ bi la dëkk. Euh, ñu ñëwoon tey pour waxtaan ak moom jëm ci mbirum euh, gaal yi nga xamante ne dañuy mbëkk pour dem Espagne en même temps tamit bëgg waxtaan ak moom tamit ci jëm ci napp bi pes bi yooyu yëpp tey moom la waroon waxtaan ak moom kon ñu bàyyi ko pour mu présenté wu sëñ ñu ngi di déjà. ñu ngi lay ziar sëñ bi. bëggoon waxtaan ak yow tey ci ci lu jëm ci mbirum napp mi. lan moo tax léegi jën manqué. Mm-hmm. waa sëñ bi ñu ngi lay ziar ñu ngi ziar ñëpp ñu ngi seetaan ak ñuy dégg ñëpp euh, boo waral léegi géej gi boo waral boo gisee léegi géej gi bëreetul jën euh, napp gi ci boppam moo changé dafa am ay mbaal yoo xam te ne dafa am ci géej gi ñu koy woo ñu koy wax mbaalu fele-fele baaxul moom day dàq jën fu fu ñu tàllal si géej rek siba la te dafa nekk euh, fii la boo xamante ne du seey du seey jën bu commencé bëgg a wàcc si bu commencé bëgg a wàcc si si biir dëkk bi gaal yi bu ñu commencé talal seen mbaali rek dootul wàcc si moo tax jën commencé manqué nii ak boto yoo xamante ne dañoo sonal trop yoo xamante ne bari nañ fi kenn xamul nuñ toll ñu ñëw signal leen suñu géej gi ñuy ñëw di yàq suñu géej gi guddeeg bëccëg suba ngoon moo tax jën mënatul bëri yaraax fii ndax Sénégal sax la jën moo fi bëreetul ndax boto yeeg mbaalu seri ñoo ñu sonal wax dëgg yàlla waaw bateau yooyu tamit est-ce que tamit euh, jotul tamit gouvernement bi di a xool ñoom seen contrat yi leen signé parce que tamit euh, ñun fii lañu juddoo Yara tool ay temps da ngay taxaw nii nga gis géej yi di jën yi di tëb ci géej yi euh, te loolu mënatoo ko am est-ce que tamit jaarul tamit gouvernement bi jéem a xool population am nan lañ mën a def ba am jën leneen daal lañ mën a def gis nga géej soo ko jox da nga koy jox koo xam te ne xam na géej maîtriser na géej xam na yàgg na da ngay xool suñu papa ñu fi nekkoon wala suñu maam yi ñooñu yàgg nañoo dem géej te yàgg nañ xam li si euh, yàgg nañ xam li ne si géej gi ñoom xam nañ luy andi nattaanga géej ak loo xam te ne da koy bekkarloo ñooñu suñ leen joxee géej gi suñ leen joxee wàllu napp gi géej gi dina dellu fu mu dellu woon mais boo jëlee ko xam te ne sàmm la xam nga def ko ci géej gi kon géej gi du changé looloo waral loolu. waaw loolu am na solo boo xoolee gaal yi ne suñ ginnaaw ay xam nga gaal yi moom bari na moom te yooyu yu ci bëri ñu ngi gaare euh, est tamit yéen fi ngeen di dafa sori biir géej. waaw ah, des fois dañuy napp dañuy dem ba si biir géej des fois dañuy dem ba tolloog ba yi fu ñuy nappee dañuy dem ba ci biir géej waaw. dégg naa tamit bato tamit dañ leen di faral di mbëkk. waaw des fois bato yu guddi nii buñ la gisul lañ lay mbëkk waaw. mais bu ñu gisee tamit mën nañ la moytu. buñ la gisee tamit ñoom mun nañ la moytu mais bato yi daal l'essentiel mooy bëri nañ si géej gi trop waaw bëri nañ si trop moom. léegi par ñaari jour ngeen di toog pour jàpp jën daal. ah xam nga géej gi moom bëreetul jën mbër da ngay dem rek tànn sens lu la yàlla jox nga andi mais jën yi wax dëgg yàlla am na ay temps doo daw sax benn bidon bopp mool bi doo ko romb te mbaaloo jën te loogu loolu mënutul nekk da ngay daw ba gore daw si biir géej doo gis dara loolu rek a ko waral bato yeeg mbaalu ñoom ñoo sonal waa Yaraax loolu buñ ko arrêté woon si géej gi géej gi man gëm naa ne dina naataat te am na jën yoo xamante ne danga fi doon gis sax bëreetul ndox loolu moo koy dàq. lu ci mel ni yeboy. waaw yeboy fu mu nekk nii. léegi boo xoolee yarax nawet nawet rek lay am yebooy nawet rek lay am te noor ak nawet yebooy doroon am fii. waaw yebooy bokk na ci bokkoon na ci jën yi nga xamante ne lañuy wax ne moom moo gën a yomb mais léegi moom moo gën a jafe. waaw moo gën a jafe fi mu nekk nii kees gi day jar ay cinquante mille soixante mille te koo ko waxoon du ko gëm mag ñi fi nekkoon boo leen fëggoon ne leen tey kees yebooy day jar trente mille duñ ko gëm. man kay man maa ngi fàttaliku jën moom daana bari ba nga xamante ne moom yebooy moom dañ la koy dañ la koy may. wala boobu ñu jàpp ko ba pare dem ci biir géej tuuraat ko uh-huh. est-ce loolu tamit mën naa amaat loolu maanaam tuur jën tuur jën mën naa amaat duñ jëlee napp gi jox ko koo xam te ne dafa maîtriser napp gi ñu teg ko ci yoon Sénégal ñu bàyyi naxante bi tey dund dëgg géej gi dina dellu fu mu dellu woon ndax géej gi suñu borom moo ko fi def pour jaam yi jaam yi ñu ci bëri si lañuy si lañuy suturoo si la ñuy gis seen bopp fi mu nekk ni moo wax la benn misaal géej gi bu xëyoon ñàkk jën si kaw boo xoolee dara du dox Sénégal géejoo ko yor ak bay bi nañ dimbale bay bi ak géej gi ñu xool ba xam kon du ñu géen di dem bitim réew duñu dem fenn duñu jéem a yéeg si gaal yi sax naan dañuy dem clandestin nañu jàppale suñu géej gi parce que ñun suñu géej gi loolu la ñu léegi bu ngeen demee mbaale ngeen yàpp essence xam nga essence moom xaalis bu bëri lay jar mhm. euh, ngeen dem jàpp leen léegi xaalis boobu ngeen ci def nan ngeen mën a waa waatee ba duyaat essence pour nappi. waaw des fois dañuy jël xaalis bu bari sol ko dem géej des fois doo am dara des fois doo am dara da ngay ñëwaat génnewaat ñoo sol loolu mooy lenn li mooy mooy mooy li ma la rek. loolu dañuy faral di wax biir géej am na ay vagues de euh, trois mètres ak yooyu yow nga xamante ne da faral di dem géej est-ce que loolu am na. waaw loolu am na loolu am na des fois am na fu muy toll si temps bi géej gi day day deey day deey wet du yëngu quoi mais am na fu muy toll nag géej gi day dugal ay ul ay uuli mag ay 2 mètres 3 mètres dëgg la loolu. est-ce loolu gaal mën na ko traverser. loolu bu fekkee gaal yi dem Espagne suñ dalee genre temps bu baaxul ñoom dañuy seet seeni gaal bu fekkee ki yóbbu gaal gi capitaine ku xam géej la moom du forcer day seet ba géej gi dal mu génnaat gaalam nank dem. mais noo koy seree biir géej parce que biir géej euh, pour nga seet fa gaal moom parce que xóot na xóotaay boo xamante ne boo sànnee kaawul bi est que mën na laa suuf. non boo déggee ñu la seer bi da ngay taxaw mun ngaa bañ a sànni kaabal mun ngaa tamit nga langal kaabal rek mais faaw nga seer parce que loolu boo ko forcé tamit da ngay lor ay bakkan des fois am na ñoom te ne bu leen dalee ci biir géej ñoom da leen di jaroon ñu du ñu forcé dem am na ci lu bëri gis naa si cas boo xamante ne booy dañ doon Espagne mais géej gi ba mu yëngoo ñoom dañoo retourné ak Sénégal waaw. dama dégg ne fan euh, am na ci ay mool yoo xamante ne dañoo demoon mbaali ñëw am ñu ne fii ci plage bi ne leen. du ngeen fi jaay wala boog euh, ñu ne yéen bokk jëndi wala boog du ngeen fi jaay. waaw loolu moom maa ko fekkee sama kanam la parce que jour boobu ñun ak ñoom ba sënkër heures du matin fii gaal gi dafa jàpp jën teel a jàpp jën ay xale yu ndaw nekk fii nangu liggéey nangu ñu def dara gaal gi ñëw teer fii bëgg a yeebe ay jënam xale yi di ko xañ di leen sànni ay xeex di xeex ak ñoom ñu ñoo mujj génn di xeex ak ñoom ba sënkër heures matin ba ñoom ñu gàncax ñaari booy. te loolu noonu tamit war nañ ci xoolaat war nañ ci wax quoi parce que ëpp na quoi imaginer nit ku yeewu 4 heures du matin yeewu 4 heures du matin dem wuti lu mu am pour yóbbu këram ñëw ba am li mu war a am ñëw war ko yebbi fii pour jaay ko ay xale yu tekkiwul dara liggéeyuñu defuñu dara ñoo ne seen i jën doo leen ko fi jaay wala dañuy am far foos loolu tamit jaaduwul quoi. ndax euh, def ngeen ci ay démarches soit dem gendarmerie wala boog euh, woo ñi nga xam te ne ñoom ñoo jiite kee bi wala. waaw jour boobu noonu ñun dem nañ mari dem dem foofu noonu ba woo leen ñu ñëw ñu expliquer leen gendarmerie ñoom tamit ñoom li ñuy wax ñun wax nañ ñu ko dégg nañ ko mais am na ñoo xam ne dañoo nekk fii si biir quai bi ñuy ñuy sàmm géej gi fois ñoom ñooy sàmm géej gi mais dañoo liggéeyul liggéeyuñu parce que ñoom ñemewuñu booy yi fi nekk moo tax. mais tamit est que tamit ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor quai bi tamit jotuñ ñu wut ñoo xamante ne euh, dañuy surveiller quai bi ñu leen di fay chaque weer nga xamante ne loolu noonu doo dafa amati. waaw parce que loolu bu njëkkoon amoon na bu njëkkoon daggoon nañ fi ay cinq personnes yoo xam te amoon na ñaar yoo xam koñ dañ dëkkoon ñoom ñoo doon surveiller quai bi ñooñ bañ fi nekkee lool problème yi yëpp amatuloon mais yaraax si boppam dañoo mànkoowul parce que dañuy jël benn affaire weer bàyyi ko tegee ko ne la léegi yow ki ngay ki ngay ne yow yaa ma war a sàmmal géej gi yow akam gi nga ko war a jox yow doo ko ko jox am na yenn risques yoo xam te ne du ko fi jël am na benn gaañ nekk si biir koñ bi naan Maguette jaañ moom jàmbaar dëgg la

Lol, moo ko waral quoi. léegi tamit euh, comme tudd nga koñ bi parce que koñ bi tamit dafa bëri agression trop trop trop trop ak xeex bi xeex bi te boo xoolee ñi ñi koy def dëkkuñu fi mais loolu tamit nan lañ mën a def ba loolu denc fi parce que tamit agression bi moom mi ngi yàq yaraax moom surtout nag na nag en trois. loolu moom dama siy sawar wax may Serigne Touba ndax sama baaraam bi ndaw bi nii dafa dama salle di entraîner ñëw ba fi war a ñëw dugg sama kër dajeeg benn maire bu xam ne mari sa jóge woon war a ñëw jënd si ay jën ma ñëw fekk ko muy jooy mi ngi sol benn seen or ma ko giseen yii yëpp deretal na léegi paa bi ko doon jaay jën mag la mu ñëw ne ma de booy diw moo doon agressé booy bi ma ne ko meer jarul jooy wax leen ma turu booy bi ñu wax ma turu booy bi ma woo sama ñaari mag ak sama benn ndax ñu ñëw dugg si biir géej ba ñu waxee turu booy bi lañ dugg si biir géej la yàlla woon ni booy bi si lañ dàqajee booy bi ba jàpp ko ci laa ko jàppee si laa ko escanté dóor ko ba sama baaraam bi dafa damm ci kawam ci lañ ko jëlee ci guddi gi ñu yóbbu ko mari boobu tombé nag nag gars yi affaire Sonko gars ñu ngi taal télé bi xam nga affaire yooyu si lañ ko jëlee yóbbu ko foofu xam nga ñëw fekk fa adjoint commandant bi daa mel ni moom la fa lañ moom lañ fi fekk ñu ne ko booy bi da doon agressé benn maire te maire mu doon agressé mu ngi nii léegi booy bi ci lañ ko jàppee escanté ko dóor ko dóori métti man daal ma toog deux jours ñëw gisaat booy bi ci biir koñ bi mais tamit loolu tamit war nañ cee wax quoi ndax nit bu jàppee nit grand falal délit agression ñu andi ko ba si brigade bi war nañ koo mën a téye. est loolu tamit du indi tamit euh, nit ñi tamit di fajal seen bopp comme que bu ñu jàppee yóbbu gendarmerie tamit dañ ko mujj bàyyi est-ce tamit du indi nit ñi di fajal bopp. waaw parce que li ma gis nii fa lañ jëm waa dëkk bi soo toogee tuuti dinañ commencé fajal seen bopp parce que man jamono si ginnaaw gis naa imam ma wax ko ne ko koñ bi yéen yéenay magu dëkk bi. te yéen a ngi seetaan loo xamante ne baaxul man sama rakk a ngi fi sama yaay a ngi fi yéen ñëpp seen doom a ngi fi te koñ bi fu mu nekk nii yàqu na. ma ne ko koñ bi boo gisee mu yàqu am na boo yoo xamante ne si biir bi lañ dëkk ñoom ñoo may booy doole ñuy fréquenté ci biir koñ bi am na ñoo xamante ne yow seen i seen mag ngay àndal am na ñoo xamante ne seen ngay àndal. doo mën a dóor ndax sëkki ngeen loo xamante ne koñ bi ñëpp ay ay ay mag a nañ moom ma ne woon ko dama bëggoon ñu def benn délégation ñu dugg ci biir kër yi wax ak ñëpp képp koo xamante ne sa doom day fréquenté ci biir marché bi ak ñoo xam te dëkkuñu fi nga bàyyi ko imaam tontu na ma ne ma waaw loolu lu nga wax noonu lu leer la loolu dañ koy def mu ne ma dinaa gis chef de quartier ak délégué de quartier ñu dem gendarmerie ñu wutal leen këyit këyit boo xamante ne képp koo xamante ne dëkku ci biir koñ bi ba yenn heures yi dootoo fi fréquenté man leen waaw loolu tamit mën na nekk ba léegi déggaatuma ko si après ñoom ñu wax ma si dara quoi kon yow moom li nga waroon a def def nga ko kon léegi euh, li des mi ngi des ci imam ak chef chef de quartier leneen tamit euh, fan yi passé dama dégg ne dañuy ñëw fii sàcc fi benn gaal yóbbaale ay booy pour dem euh, mbëkk mi tamit xëy na loolu sax mënoon naa ko dugal ci fële gaal googu fan la mujj. waaw gaal googu noonu non waa côté Bélé côté Feeraay foofu fa la xewee quoi ay booy yu doon dem Espagne xam nga ñoo fekk ay bagages yu jàmbur ñoo fekkaale ay doomu jàmbur jël leen yóbbu leen. waaw loolu moo xewoon foofu quoi mais maa ngi déggal ñu ne gaal gi après mujjul egg quoi na fa mujj teer ndar la mujj teer ndar. sa kàddu gu mujj lu muy nekk. sama kàddu bu mujj mooy wax dëgg yàlla xam nga état bi bu fi nekk ni moom jeex na dama bëgg état beneen bu fiy ñëwaat bu ñëwee na respecté doomu aadama yi te na dimbalee ndaw yi ñu pour ndaw yi mën a xëy mën a liggéey pour ndaw yi mën a fàtte si yoonu Espagne bi parce que yoon bi métti na métti na métti boo xamante ne. ku si demul rek doo ko xam nañ jàppale xale yi ñu liggéey te yàlla tax.